mais bala ñuy dugg si loolu. waaw naa fi ñeenti at yoo xam ne benn pantalon ak benn chemise laa laa dese fii à Kër Mamélage. samay mbokk ñu ngi may dégg samay xarit ñu ngi may dégg. ñeenti ñeenti atu yàlla yoo xam ne benn pantalon laa am ak benn chemise si ay jafe-jafe ay tar-tar yoo xam ni du yaa fuusoo maanaam maanaam maanaam jàng nga dem nga bitim réew jàngi ba ñëw mais ñibbisi nga réew mi dëgër nga nekk si ay tar-tar yoo xam ni avec une famille à entretenir. xam nga seen Pape. waaw juddu nekk kenn ci sa wéjur wu góor. waaw man yàlla dogal na maay sama taawu yaay. Mhm. di sama taawu papa. Mhm. sam papa man kese la am ci doom décédé. il a vécu 37 ans sam papa fanweeri at ak juróom-ñaar la am génn àddina ñu koy wax Idrissa Dieye. Idrissa Dieye. jàngale na fi Kaba Sall pendant 20 ans. waaw bi muy dem di làqu man fukki at ak ñett laa am di xale bu ndaw. 13 ans 13 ans laa am. Mhm. si ku sa waajur wu góor génn àddina day mel ni daal daanaka sax say bët day fat boo amul ay nit ñu baax ay kilifa yoo xam ne mat nañ kilifa. yu la doomoo teg la si seen wet maanaam dangay dangay dangay ngay da perdi li wolof naan da ngay perdi da ngay perdi. Mhm. waaye jooyu ma dara ndax sëñ Muniru Njëgeen mi nga xam ne daf maa téye. waaye sëñ Modou Dieng Baye defal yàlla toujours ma wax ko. dafa may dégg tudd lu bari dama koy dama dama leen di tudd lu bari. gis nga bi ma nee cëpp. déjà bi ma ganee àddina onze mois laa barkeelu si sama yaay ñu jël ma feral ma jox ma sama maam ak Kër Sambakat. onze onze mois à l'âge de onze mois meewu Gigos bii. laa daan barkeeloo. Hmm? sama yaay boobu muy liggéey mënu ma boole ak liggéeyam. moom mu nekk à à Bambey man ma nekk Kër Samba Kane fa laa nekk ak sama maam Mariette Wade ba am entrée en sixième. Mhm. door a jugee Kër Samba Kane dem Bambey continuer sama cycle collège. waaye diggante boobu yépp nekkuma ak sama ndey nekkuma ak sama baay. Hmm? gisuma si kenn sama maam daal laa nekka hmm. yàlla nag nattu woon ma si laax. ci laax laax waaw. su may xëy di jàngi daal mun ma na nga góorgóorlu bu baax Ablaye na nga góorgóorlu loo bëgg ma toggal la añ ma ne ko laax. waaye gis nga dëkk bi bu rang bi defee nii rang wàcc bi bu ñu defee nii en rang oh. maay ne sa kanam sama jàng nag mosuma ko fooy waaye sëñ Pape bi ma ne cëpp États-Unis xaw ma fa kenn bi nga ma ne cëpp états pour la première fois xaw ma fa kenn j'étais pas parti dans le cadre de ma thèse de doctorat xaw ma kenn Amérique ma ne cëpp États-Unis ñëw Jersey ak samay bagage hmm? noonu laa continuer daal di dem euh, euh, Ohio Columbus. waaw sama deuxième voyage ma daal di dem Detroit dans le Michigan ñaari voyage yépp fa ma jëm xaw ma fa kenn xam-xam moo ma yëkkati woon. xam-xam xam-xam moo ma yëkkati woon. jar naa dem ba Chine ni ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxee. Mhm. France dama faa sonn. da nga sonn loolu dama dama sonn France. am na ay moments yu la marqué yoo xam ne dañ nga fay mitit. ay ay daaw dem sax ba nar a découragé. non ba nar a découragé pour te dire que. xëy naa benn bis aw ma lu ma añee aw ma lu ma ndekkee paquetu lentille bu yàgg laa fekk sama armoire sama xarit yi ma miin dégg nañ ma koy nettali hmm? ma xëy war a jànge aw ma lu ma lekk mais foofu c'est fréquent amoo bourse amoo aide boo amul liggéey pap mhm. Sénégal li mu ñàkk ci ay intellectuels de haut niveau yoo xam ni ils la le bac dem après le bac gënul naam possible na mais gënul mais da ngay dem xoolal sa emploi du temps dafay fees. doo mën a liggéey à côté. boo amul bourse amoo ku la dimbali maanaam di la yónnee xaalis mais collecteel fii difficilement cent mille francs yónnee ko fa jeune étudiant ba cent cinquante trois euros la fay doon mënul sax fay luyaas man nekk si situation yooyu mais paquetu lentille boobu laa jël daal di koy baxal daal di koy kii fa ma doon liggéeyee noonu nga xam ni si minuit laay xëy ba 6 heures du matin 2 heures de temps lañ ma doon fay comme porteur de presse dans le 16e arrondissement de Paris là où vivent les milliardaires et les millionnaires de la France man maa yoreen seen livraison journal Le Figaro chaque guddi j'avais le code de tous les appartements hmm? yàlla mooy sama borom tiim na ma benn bi sëñ Pape la nuit hmm. man ak police ñoo daan fanaan ba bët set te xamuñu ne oma kayit njortu na ndeg nii kii di liggéey nii si guddi gi nii hmm. ben ben il doit être légal mais mais am na carte d' étudiant je suis légalement inscrit à l'université mais au may kayit parce que expliqué woon naa la la dernière fois léegi bi ma ñëwee dugg si benn kër fekk fa benn waaye mu teg ma fetal mu teg la mu teg ma fetal man dama demoon jàngi xam-xam di liggéey pour suturlu dimbali sama waaju di liggéey guddi dans le noir ni kapaj buntu appartement waa ji xam naa daf ma tegoon nitu guddi wala kuy dox wala genre teg ma fetal ni ma dama lay rey loo fi wut ma wan ko datu quotidien Le Figaro bi ni ko monsieur je suis désolé je suis étudiant je je comme ça ça ma permet de subvenir à mes besoins waa ji ma wan ko datu datu journal bi xanaa war na la doy seede ni journal bi ñu ngi koy door a génnee si guddi gi dama koy indil ñi nga xam ne ñoo ko moom comme livre je travaillais comme livreur de presse hmm. comme porteur de presse hmm. léegi nag bi ma ñëwee waa ji gëw ma na retiré ma ni ko tiireel waxoo loolu ma la ko sëñ dëgg la tiireel. Mhm. waa ji kat kat yi kay ma ni ko tiireel xam naa nag na taxul di ko dafa dafa ànduloon ak sa bopp ma dem wax ko sama boss mu ne ma dama lay remplacer dama lay jëlee secteur boobu yàlla xam na ni ma ni ko du du si am damay retourner foofu damay liggéey damay daan sama doole su ma rayee ma xam ni dee na yàlla ma ko tuddoon waaye man duma kuy daw. Hmm. li may wax nii su ñi ma xam-xam nañu. waaw du ma mhm. nii la demee bi maanaam souffrance yooyu. du tàqalikoo ak yow da nga siy sant yàlla. mais li nga wax aussi nii bi ngay def sa sa sa. sama thèse de doctorat da nga tëb miir. incha loolu loolu lu maanaam man aw may kayit. waaw je suis légalement inscrit à l'université avec un professeur qui me suit en France. au département d'anthropologie et de sociologie de Paris 8 avec un professeur qui me suit à Gaston Berger j'ai fait une thèse de co-tutelle avec double encadrement moo waral deux doctorats yi hmm. léegi nag nee naa la Sarkozy bind naa ko mu tontu ma ni ma demal sous préfecture ñu jox la say kayit ma dem ñu ni duñ ma jox kayit mais ma war a soutenir sëñ Pape est-ce que xam nga soutenance thèse de doctorat il te faut man j'ai soutenu ma en 2 ans ak 641 pages. 600 man man am naa thèse bi. yo yónnee naa la thèse bi. gis nga ko. waaw man kay nee naa bi mu bind lii fan la newoon. parce que man. est-ce nga nelaw. boo nee boo nee au moins au plus. wala nga ni maanaam maanaam au plus man sa plus man laay dem toog ci prix ka nga xam ni yor na setal la ndox di ko duy te feesul wala mu jëfandiku ko ba noppi te duyaatu ko hmm? nit oh. war ngaa jombale sa bopp hmm. jël setal la ndox wala lu mu mënti doon di wut ndox di ko duy à moitié wala au trois quarts plein déggoo ma de dans la vie courante sax yow maanaam sa grandeur ambition dafa war a déteindre si say activité fan nga ak sa yéene ak sa rythme ak sa passif li ngay def daf saa war a feeñ maanaam tey jii man su ma jëlee seta la tiim daali nii di duy wala robine bi man du ma duy seta la mukk au au trois quarts wala mu des tuuti wallahi alazim yàlla mooy sama borom seta su ma koy duy dama koy duy ba mu fees dell su ma ko utiliser ba noppi dama koy duyaat ba mu fees dell teg fa ndax nit dina ko soxla soxlawaat sama ginnaaw li li waral feesal bu njëkk bi mooy su ma ko feesalul day mel ni man li ma bëgg très clair. <laughs> day mel ni li nga bëgg matul. day mel ni li ma bëgg matul. te man euh, toujours rek au plus le le plus important ak le plus élevé moom ngay viser waaye boo ko duyee bi defali ko ba noppi. Hmm. waa jii duyaat ko teg ko fa. nit dina ko soxla sa ginnaaw bu bu bu sa jëfandikoo yàlla bindal la tuyaaba. donc nit war ngay bàyyi xel ñeneen ñi. Hmm. waaye war ngay yëkkati sa himma ak sa yitte ak sa passif. Hmm. maam Cheikh Ibrahima nee na. farlu leen si yitte ndax yitte mooy yattu bunt. Cheikh Ibrahima Fall. Babul Mouridine loolu la wax farlu leen si yitte. ndax yitte mooy yattu bunt. mooy yattu bunt mooy yattu bunt. sa maam xam Hadj Mouhamed Ndiéguène bu nit euh, euh, di yoggu yoggi yambare bëggul lu baax bëggul boppam fonkul boppam. nee la lay teg. Hmm? du la tooñ du la wax safaan du la ko def mais du seq ak yow dara ndax bëggul ku yambare bëggul ku yox yoxi maam alaaji maam alaaji te nag bu doon sax as lëf yaroon nañ ko ci keppaar dans la vie il faut se donner de grandes ambitions aux grands hommes les grandes ambitions aux petits les petites ambitions est-ce que xam nga ni impossible bi ñu topp nii di ko tàccu impossible impossible impossible mënoo ne mënoo ne jëlal apostrophe bi dugal ko diggante i bi ak m bi ça te donne ayam boo ko anglicisé daf la jox I am mm-hmm. I am possible <laughs> c'est très clair <laughs> impossible boo ko bindee en lettre capitale nii I M P O 2 S I B L I B L E mm-hmm. nga dugal apostrophe bi entre I bi ak M bi mm-hmm. boo ko anglicisé daf la jox I am possible même l'impossible te dit qu'il est possible en développement personnel l'impossible n'existe pas waaw parce que tey moom ci tey parce que dama wax si Ablaye léegi moom nañuy fas yéene jotaay bu ñu am dañuy jël benn benn fàcc parce que keroog dafa am yu bëri yu ñu jël te amuñu woon temps bi mais cette fois ci tey ci développement personnel la wax développement personnel Cheikh Laye mais balaa ñuy dugg ci loolu très bien bala ñuy dugg si loolu toog naa fi ñeenti at yoo xam ne benn pantalon ak benn chemise la laa dese fii à Kër Mamélage ah samay mbokk ñu ngi may dégg samay xarit ñu ngi may dégg ñeenti at ñeenti atu yàlla yoo xam ne benn pantalon laa am ak benn chemise si ay jafe-jafe ay tar-tar yoo xam ni du yaa fuusoo maanaam maanaam maanaam jàng nga dem nga bitim réew jàngi ba ñëw mais si nga réew mi dëgër nga nekk si ay tartar yoo xam ni avec une famille à entretenir. bi nga jógee France bi ma jógee France. ñëw benn tubay benn tubay def naa ENA niveau A. ba entretien avec le jury ñu tey ma jamono yooyu la woon 4 ans yoo xam ne benn tubay ak benn pantalon laa am boo ma gisee da nga may yërëm am na sax ñu foogoon ñu doon wax leneen mais ils n'ont rien compris. lan nekkoon sa force. lan moo nekkoon sa force mooy. wallahi dama daan diisoo ak suñu borom nee naa la jumaay kër Maam ji wéet naa fa ba tey laaj ko Paa Diallo moom ñeenti at yoo xam ni boo jumaaje boo ñëwee gis nga bu ñu daan julli it damay bàyyi ba ñu kabar ma dem fa rang bi yam fa lay lal sama sijaada toog ndax du ma am yére yu ma sol góor bu naan Paa Alaaji Góol Njegeen njabootam ñu ngi may dégg fekk na ma fa buntu kër sañ bay di aan ni ma ab Ablaay looy def fii fekk moom si dëddu àddina woyof buggul mbooloo buggul fës foofu la daan lal fii fi maanaam day bàyyi ba ñu kàbbar mu ñëw fekk fii rang bi yem fa lay kàbbar mu ñëw fekk ma fa man it loolu laa doon wut ñu ñu kàbbar nga xam ne le strict nécessaire laay fekk ñibbi am yoonu julli ndax aw ma lu ma sol pantalon ak chemise laa julli jee jour boobu tabaski xaw ma ko korité paa bi fekk ma fa di jooy hmm? ni nii soo ma ko waxoon ma jox la loo sol mais loolu lépp sëñ Pape dama see sant suñu borom yàlla moo am ndax boo jàngee ba noppi à l'université yàlla daf lay dugal beneen université pour nattal la kaay ma nattu la mooy kaay ma nattal la. voilà mooy l'université de la vie. l'université de la vie et ça passe par les épreuves moo tax mën nga ko tuddee l'université des épreuves tubaab naan ko la traversée du désert. ci noonu ñàkk nga fi sa sa doom. ñàkk naa fi sama doom. bu ay ay conditions yu doy waar. ba tey ci ba fii may wax ak yow nii. ba tey ci jafe-jafe ay tartar nga ñàkk sa ma ñàkk sama doom si condition yi doy waar muy sama taaw ma tudde woon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Mouhamadul Amin Abdoulaye Dieye dans des conditions extrêmement difficiles nan nga ko hmm, am kilifa sax moo tax sax affaire bi yam fii am kilifa waaye doy na kéemaan waaye akama see sant yàlla ndax mënoo étudiants yi dégg nouvelle bi ñëw professeurs yi dégg nouvelle bi ñëw ngay un professeur de développement personnel ngay un professeur de psychologie ngay un universitaire enterrement ba say étudiant war la ngay salit di rouler dans la boue di jooy di tàqalikoo ak sa sabo dañ naan kii lan ñu daan jàngal classe mais lii firiwul lool ma doyloo suñu borom muñ muñ muñ dama muñ da ngaa muñ damaa muñ. da ngaa da amul pexe wala da ngaa muñ. non damaa muñ parce que sëñ Pape. waaw kenn du fekk nit mu toog ak gileem gu nu yi ñu naan ko muñal dañ lay fekk si lu tar lu diis lu wex xat doo xam noo koy def su boobaa fa la muñ di amee solo waaye yow mii ñu yekkal la fii yi bu baax ñu naan la sëñ Pape muñal looy muñ. muñ foo ko dégg rek nit ki mu ngi bëgg de waaye aka am salaire moom muñ muñ parce que yàlla nee na maa ngi ànd ak way muñ yi maa ngi ànd ak maa ngi ànd ak ñii muñ man yàlla suñu borom maa ngi ànd ak way muñ wasbir kama kama sabara ulul azm min ar-rusul mu ngi noonu loolu yàlla wax yonent bi de maa la ko wax inna allaha ma'a sabirin tamit jeex na takk mhm. mais boo amee sëriñ nii maanaam faw fa mu jaar am jeexital si sa dund te ñun suñu mag ñi ñëpp ils ont mené une vie de mhm. maanaam àddina faaw nga xam ni yoon wi ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile en tant que tel ki est le chemin. Le président Abdou Diouf nee moom président Abdou Diouf seen pap la bu jeex man maa la ko wax. waaw kii que Gade a dit ce n'est pas le chemin qui mais c'est le difficile en tant que tel qui est le chemin. faram maanaam yoon wi mettiwul jafewul metti metti. ak jafe-jafe mooy yoon wi loolu la loolu la kii ko gaat wax loolu ëlëm xelu Abdou Diouf ba mënoo ko interviewé te waxu la loolu. te yoon woowu ni mu jafee nan lan nga war a mel pour mën a jàll ci yoon wu jafe boobu. dama daan waxtaan ak suñu boroom en méditation naan ko man nga lépp ba mu des toroxal sa jàmm. nga koy wax loolu yow. ma koy wax loolu yàlla yow suñu boroom tëlewoo dara boo amee looy tële benn mbir lay doon muy doo tooñ sa jaam doo ko toroxal. pap ma xam fi ma jëm accroché wu. xamoon nga fi nga jëm. xamoon naa fi ma jëm accroché wu gis nga euh, am na yoo xam dafa doy kéemaan sax gis nga jamono yooyu quatre yooyu. Mm-hmm. mais am na si boo xam ne si la maam Abdou Aziz baax wàcc gis nga bi maam Abdou wàcce. waaw oh. musuma woon dem Tiwaawan wàcc nii en chair et en os dama daan romb rek dem UGB dem jàngi man nag ay kilifay politique yi ngay dégg ñu bari ñoo nekkandoo woon à Berger du ma lim su ma limoon nga sëñ bi sa kii ñoo am na ñoo xam ne sax maa leen jàngal karaté <laughs> du ma tudd yàlla sedd na ko mais bi maam Abdou Aziz Dabakh wàcce man laa mës teg sama tànk waawoon def naa fa trois jour ñetti fan ñetti fanu yàlla ci dem bi nga fa dem noonu dem bi ma fa dem noonu jaale ji de def naa fa trois jours yàlla mooy sama borom sëñ Pape bu bëccëgee man na si xew mi cérémonie bi togg yi raxas yi barkeelu xam lan moo nekk si liggéeyal nit yàlla bu guddee ma jé ma dem tëdd si wetam nelaw hmm? pendant trois jours te loolu lépp jamonoy jafe-jafe yooyu la ma fekk. ci jamono jafe-jafe yooyu ci jamonoy jafe-jafe yooyu. sëñ Pape nee naa la ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nou n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. <laughs> c'est c'est wallaahi dëgg la. sortir de, de ta zone de confort. Mmh. C'est ce on a besoin. Parce que nous avons des ragala oser, des ragala nek. Nous avons ragala aussi, moi, il y a peut-être des difficile de réussir aussi. C'est Le développement personnel. Wow. Le développement personnel, xam nga day doon euh, benn science boo xam ni mu ngi si biir psychologie. Le développement personnel appartient à la psychologie, est une entité Mhm. disciplinaire de la psychologie. Mhm. Et la psychologie est une science qui appartient à la catégorie des sciences humaines et sociales. xam nga xam nga deux catégories de sciences ñoo am. Mhm. les sciences exactes dites rationnelles dites pures dites dures exemple maths physique chimie PC SVT etc. astronomie etc. Il y a une autre catégorie de sciences qu'on appelle les sciences humaines et sociales elles sont apparues suite à la révolution industrielle en Occident suite à un chaos social généralisé. causée par cette révolution industrielle dans ses effets pervers et collatéraux. Il fallait l'émergence d'une nouvelle forme de science mmh. capable de prendre en charge les problématiques humaines et sociales. Mmh. C'est en ce moment-là que les sciences humaines et sociales sont nées. Exemple, psychologie, anthropologie, sociologie, économie. L'économie n'est pas une science exacte. C'est une science sociale et humaine. Parce que dans la vie, c'est la, la, comptabilité et la statistique qui sont des sciences exactes. Mais l'économie est une C'est dans cette psychologie-là qu'est logé le développement personnel. C'est-à-dire y a un fort potentiel humain, intarissable, inconnu, inexploité, qui dort en l'homme et qu'il faut réveiller, qu'il faut éveiller. Et c'est ça la finalité du développement personnel. <laughs> la maïeutique socratique, mmh. l'art de faire accoucher les esprits. Tout à fait. Mais, mais euh, Chabla, nan nga koy nan nga koy xam nga loolu nga ni kon nit ku nekk am na lu ne ci yow nga xam ko nga ñàkk ko xam. nit ku amul njariñ amul nit ku amul solo amul nit mooy réere boppam te xam-xam yépp xam-xam bi si foor gën see kawe mooy xam sa bopp ndax boo xamee sa bopp di nga xam li nga mën li nga mënul li la war li la warul li nga war a ñemee def ak li nga war a jomb loolu xam sa bopp moo la koy may est-ce que xam nga ni nit ni nga war a toogee nii sëñ bi da ngaa war a toog kese si sa ruq di jàng sa bopp toog yow kese ci sa ruq sama wasila nee na ma nit dañ koy jàng comme ni ñuy jàngee darsu xam-xam noonu la ñuy jàngi nit waaye hmm. jàng bi gën a foo mooy jàng sa bopp Pape il faut soto éduquer s'auto écouter s'auto soto écouter déglu sa bopp <laughs> déglu sa bopp mais boo déglu sa bopp lu mu lay wax. est-ce que xam nga ni boo toogee nii si euh, je parle aux étudiants il faut prendre le temps de s'auto-écouter et de s'auto-connaître parce que dans la vie toute génération a une mission soit à accomplir soit à trahir et chers étudiants chers jeunes sénégalais ne ne ne ne fassez pas pas ne soyez pas de ceux qui vont trahir leur mission mais soyez de ceux qui vont accomplir leur mission et le développement de ce pays nous incombe à nous Il faut que chacun y mette du sien pour que le Sénégal se redresse. C'est comme une vache à terre. Il faut que tu mettes ta main de l'autre côté, moi de ce côté-là, deux autres de l'autre côté, prip, et on donne le signal. Si on soulève ensemble et de manière concertée et coordonnée, la vache va se redresser sans aucune peine ni difficulté. Très clair. Donc, développement Sénégal, du état kese du société civile kese du opposition kese du étudiant bi kese du parent bi kese ku si nekk sa làccu responsabilité nan ngay dégloo sa bopp. nan ngay dégloo sa bopp la méditation moo lay permettre nga connaître sa bopp le prophète de l'islam a dit en chaque musulman dort un sixième sens prenez le temps d'écouter ce sixième sens là et de l'éveiller. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam le prophète. Est-ce que xam nga ni lorsqu'il lorsque tu dois choisir sëñ Pape question de développement personnel. Mm -hmm. lorsque tu dois choisir deux choses de deux choses la chose qui t'attire le plus qui plaît plus à ton âme charnelle. c'est pas c'est pas le bon choix c'est pas la bonne chose à prendre. Ah maa la ko wax. la ngay ragal di ko daw ñemewoo ko loolu mooy li gën si yow. la ngay la ragal di ko daw. la ngay ragal di ko daw. maanaam ñaari mbir boo si waroon tànn tey. Mhm. bii neex la intéressé la attiré la bële ñemewoo ko quoi amoo courage. Mhm. pour dem jël ko. Mhm. booba noonu c'est le bon parce que seytaane li gën si yow daf la koy ragalloo daf la koy ragalloo daf la koy dawloo daf la koy daf la koy diisal diisal ba yow doo ko ñemee gàlloo nga jàpp ni lii mënuma ko réaliser nga jàpp ni lii mënuma ko réaliser nee naa la les anglais disent la seule limite reste le ciel et personne l'a encore touché dans la vie il faut en permanence dans la développement personnel il faut en permanence se remettre en question c'est-à-dire se poser des questions mooy écoute de soi la la personne doit se remettre en question qu'est-ce que cela veut dire se en question la personne doit se poser des questions yooyu yow yaay émetteur bi yaay récepteur bi yow yaay interlocuteur bi kenn amul tontu li ku dul yow mii nga xam ni kenn gënu laa xam sa bopp. <laughs> wallaahi dëgg la. très clair te dans la méditation dangay ngay boo toogee nii yow kese dara perturbé wu la dara dérangé wu la sëñ Pape boo ko yëgee ak boo ko yëgul yëpp yaa ngi dégonflé da ngay toog ba si yàgg beneen air nouveau beneen souffle moo lay dugg nga beesaat taq si himma ak iraadatu ak pas-pas ak pastif sëñ Pape ku la raw daf laa ëpp pastif ku la raw daf laa ëpp yitte ku la raw daf laa ëpp détermination Rien dans la vie ne peut se construire sans ces 4 D, ces 3 F, ces 3 C et ces 4 P. Mmh. Dans le développement personnel. Les 4 D, c'est le désir de le faire, le premier départ. Le désir de le faire. Le désir de le faire. Ah, faut que désir pareil. Très Devant une, de, devant une ambition, mmh. devant un projet et un dessin, EIN, mmh. il faut désirer le projet. Il faut désirer la chose. Au-delà d'un simple plaisir béat, tu dois aller au désir. Le désir est plus fort que le plaisir en psychologie. Le simple plaisir, si tu ne le satisfais pas, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a mhm. tu attends la, première, euh, euh, la prochaine fois, tu remets ça. Mhm. Mais le désir ne te quitte jamais tant que tu ne l'auras satisfait. de, de, Devant un projet et une ambition, on doit être hanté par un désir de le faire, le premier dé. Le deuxième dé, la décision de passer à l'action sëñ Pape Wolof Ndiaye nee na kenn du jëf ba raw la nga fas yéene di wax ba dab ko. wolof nee na. waaw kenn du jëf ba raw la. nga fas ne di wax ba dab ko amul. amul la décision de passer à l'acte à l'action tu sors de la simple parole vaine et déconstructive. Mhm. tu rentres dans le domaine de l'action novatrice et constructive. jëf muy jëf. jëf nañu bàyyi ba dem yombal xiyaam. ni ko maam Cheikh waxee. ba yàlla fay wax bàyyi jëf daal di ni jëf jël. les grands hommes. ont toujours laissé leurs actes faire du bruit et non pas leurs dara du jëf jàpp ak tiim du benn. Mhm. boo jàppee yaa moom jàpp nga téye nga mu ngi ci sa loxo boo tiimee da koo tiim rek tegoo ci sa loxo moo moo ko rëcc na la. mooy diggante mooy différence bi am ak jàpp ak tiim moo tax mag ñi daaw ñu tiim. Hmm? parce que solution simpliste la. <laughs> solution simpliste. solution simpliste la. Uh-huh. troisième des seen pap mm-hmm. la détermination. détermination. c'est bi ma demee États-Unis dama mos denk si benn salon. Eh. de de médecine accompagné woon sama benn xarit di ko traduire en anglais. suñu benn xaritu Moodu Moodu. Mm-hmm. maa ngi gis ñu tàppee foofu parce que foofu léppay wax ak yow même t-shirt yi dañuy wax ak yow. Mm-hmm. y a des proverbes et des adages qui sont écrits sur les t-shirts et qui te rappellent ton pays tes valeurs ta source ta culture. ñu bind si winners must have two things. Mm-hmm. definite goals and burning desire to achieve them. ceux qui gagnent, les vainqueurs, doivent avoir deux choses fondamentales, des objectifs clairement définis et une volonté ardente de les réaliser. Réalisation. Ça nous ramène à l'action. La détermination, c'est pas. Détermination. dara du détermination ma loolu la naka laa koy naka laa koy naka laa koy assimilé. mais jëlal sa oto di dem Dakar. waaw songu AIBD bi sëñ Pape. Mhm. am nga droit reculer wala ngay dellu ginnaaw. loolu mooy détermination qu'il pleuve qu'il neige qu'il fasse beau ou non que le soleil soit là que tu aies des problèmes ou pas tu ne renonces pas à ton objectif c'est la raison pour laquelle en développement personnel lorsqu'on est dans la réalisation d'un but d'un dessein et d'un objectif on ne doit en parler qu'aux gens qui nous encouragent. incha ndax nit ñi dégg très clair parce que gars yi ak a ñoo mën damay def li ñu lu doo ko réussir bu ko def. boo amee yéene. wala nësër wala mbëbët bu baax bu kawe bu si waxtaanal ak kudul koo xamante si daf lay yokk jom daf lay yokk yitte daf lay yokk passif daf lay encouragé ba boole la sax ak ay nit ñoo xam ne dinañ la jàppale pour mbir mi taxaw. détermination la la détermination. sëñ Pape. dara du détermination. yemal ak lenn. si Abraham Lincoln moom la amoon. maa la ko wax parce que si biir détermination ñaari ay ñu ngi si. waaw engagement ak exigence ñu ngi si biir détermination. engagement ak exigence. xam nga engagement mooy la waaw mooy volontaire. waaw. déci jël sa décision volontaire. waaw parce que dans l' engagement y a le défi un défi on ne se on on, l ne l'impose pas à quelqu'un c'est la personne qui se l'impose Mhm. comme nga ni man damaa jàpp boo bokk si famille boo xam ni dañoo néew doole fas naa yéene fii ba ilal abat man dinaa liggéey am alal joo xam ni maa leen di yoral seen lépp kenn dootu si torox kenn <laughs> forcé wu la ko mais yow dangaa ngaa xam ni loolu yaa ko angu li xale yi naan angu c'est ça la détermination man c'est un mot et dans la détermination y a les deux E y a l'engagement y a l'exigence l'exigence xam nga Pape exigence mooy lan waaw ay Pape du ma wéev Pape du ma Orange Money relation yi bëri jeex nañu takk nañu. Hmm. ndax diw am na xaalis du ma dimbali. diw duma jox dara. mais ex loolu ngay exiger nit ki hmm. exiger ko sa bopp. nan nga ko exiger sa bopp. mooy l'indépendance la liberté et la discrétion te jom seen pap hmm. xam nga lu waral fa fas jom. waaw da ngay romb fas ci kaw tali bi. question de développement personnel. mag ña seen maqaama yu mag ya. les grands hommes ay Cheikh ante Diop. Mhm. ay maître Abdoulaye Wade nii yaa ngi dégg président yu baax maanaam li ñu jot a réaliser. Mhm. li leen ko may mooy de grandes ambitions aux grands hommes les grandes ambitions aux petits hommes les petites ambitions les grands hommes se soucient d'éthique les petits hommes se soucient d'étiquette. Mhm. waaye sëñ Pape. waaw la lu war a fas jom. waaw naaj bi day tàng jër wallaahi. amaanaam sax feer ba ñu defoon ci tànk bi dañ na wala ret na ba jeex takk te borom yóbbu ko fas bi moom fas bi waaw ñu jël ngalaat dugal ko ci gémmiñ gi xamuñu ndax làmbañ woo coincé na xamuñu ndax bëñ bi day metti xamuñu ndax làmbañ wi dagg na mm-hmm. loolu lépp géré ko yëguñu ko suñu yoon nekku si ñu solal ko ngalaab woy mm-hmm. di xëcc di xëcc di xëcc xamoo ndax làmbañ wa coincé na xamoo ndax làmbañ wa dagg na xamoo ndax bëñ ba damm na nga boole kooku ay yat di dóor yenn saa yi fu bon nga koy dóor waaye dangaa dangaa mas dégg fas ni maanaam du ma dem wala dangaa mas dégg ni fas ni baal ma jégal ma wala dangaa dégg fas ni euh, dóoral ndànk wala fi nga ma dóor baaxul. da nga koy romb naaj bi tàng jër. muy dem rek yenn saa yi ay nit yu bari si kaw diis ko yan ko lu diis lu bari muy dem rek fas jom foofu la jógee. diw fasal jom diw fasal jom mooy mooy fasal jom ñi fas hmm? sëñ Pape jom mooy tax ba duñ la tungoom nga gën a gàtt ka la tungoom jom jom mooy tax yow man duma la tungoom da nga nodd gi man duma la tungoom nga may gën a gàtt kooku yàlla na si yàlla musal way jur yi ak maam yi ñoo ñu tungoom waruñoo yées ba gën a gàtt ki ñu tungoom te loolu jom moo la koy may. quatrième D. la discipline. discipline la discipline. Sénégal le premier intrant du développement et de l'émergence du Sénégal c'est la discipline c'est le civisme c'est le patriotisme c'est la citoyenneté c'est le don de soi c'est l'engagement c'est l'exigence c'est la détermination c'est la discipline c'est l'entrepreneuriat renforcé et rapide loolu ñun moo ñuy génne ci guta gi ñu nekk gars yaa ngi siy liggéey ils sont en train de faire de très bonnes choses. Mhm. mais lu baax du doy. 4D yaa ngi noonu. 4D yi le désir de le faire. la décision de passer à l'action. Mm la détermination et la discipline. mais c'est la discipline qui a fabriqué et construit le développement et l'émergence des pays asiatiques. Cheikh Ablaye jox ma loxo tuuti mën na la lé da nga rek sama xel dem ci les pays asiatiques far nga wax ko. sëñ Pape man am naa sama benn xarit bu dem Chine bi ma ko njëkkee gis dama ne ko bëgguma sëri dara wax ma ni chinois yi def ba wallaay alazim boo demee moom mooy. dégg nga xoolal fi Chine tolloon ak léegi. waaw yow milliard quatre cent millions lañ. nga ne ko wax ma rek. fu wax ma rek fu yow mi dem ba ba sa ñoom. dëkk ak ñoom pendant six mois. kii dafa demoon stage xaw ma waaw wax ma rek nan la chinois yi dafa dem mu ni ma xoolal doo dégg téléphone portable bu sonné. nii nii si kaw nii. ngeen nekk dans un bus wala dans une dans un lieu public wala dans une assemblée nga dégg ay téléphone euh, kii kii di sonné. waaw déedéet vibreur lañ koy def parce que bëgguñoo déranger. ñi nekk si seen wet te amaanaam sax duñ jullit mu ni ma xolal kaar bi bu xasee ba taxaw nii kaar bi bu xasee ba taxaw waaw receveur bi du la delloo weccate tu montes en faisant l'appoint bu ticket bi dee un yi un yen cinq tu montes avec un yen cinq fii da ngay gis ku yoree dix mille francs wala cinq mille francs mhm. jox ko receveur bi dugal nga ko si ay problème te taxaw exiger nag par force mu wecc la mais mais mais mais mieux wala pi bëgguma ni piir mais mieux. waaw xoolal da ngay jël ay nit bëgg leen yóbbu en excursion. 13 mm-hmm. lañ de wala 18. waaw ñu gis bus bi muy ñëw location bus chauffeur bi kese si nekk. Mm-hmm. dëgmal si leen gaare si seen i tànk. des fois les vitres ne sont pas teintées xam nga yàgg la place. mais faaw ay écouteurs dagg faaw ay téléphone wadd faaw ay euh, maanaam ay dàllu carax dagg ndax lan buuxante. buuxante si lu ko jarul. def nañ ko fan yëpp ci terre bi ci terre bi jamonoy koor gi ba am ay vitres yu ñu toj foofu. c'est-à-dire que ñun dafa ñun dañoo war a góorgóorlu aussi baax nañu am nañu kilifa am nañ jom bëgg nañ lu baax mais nañu góorgóorlu si teg yar ak teggin réew mi xoolal le top management là il a besoin de la collaboration et du dynamisme du down management. et de manière concertée on construit l'émergence du Sénégal mooy nagu loof ma la waxoon. développement ak ak émergence sëñ Pape nagu la. Mhm. nagu loof yow kese mënoo ko yëkkati man kese mënuma ko yëkkati mhm. dañuy doon ñeenti yëgoo ku ne jàpp fenn ñu ni ëpp bu ñuy yëkkati nag bi du jub très clair loolu la noonu waaw donc 4D yaa ngi noonu waaw les la connaissance de soi la confiance en soi ak la croyance en soi connaissance de soi xam sa bopp confiance en soi nga ni man j'ai toutes les chances de mon côté pour l'emporter croyance en soi bis ki tey ku ma gis dama lay jàppe nawle du ma surga kenn. c'est excellent wallaahi l'azim waaw bis ñi ki tey ku ma gis rek jàppale nawle. nawle laa lay jàppe. la croyance en soi la confiance en soi j'ai le potentiel nécessaire pour remporter le combat la connaissance de soi moom laa la waxoon moo lay may lépp nag xam sa bopp. xam sa bopp mooy ngën di màggi xam-xam. La connaissance la plus épanouie et la plus euh, achevée, c'est la connaissance de soi. Hmm? xam sa bopp muy lépp muy lépp sama sëriñ xam sa bopp xam ni ngay peese. Hmm. yow tey jii sa wéjur wu wu góor bu doon euh, sëriñ jóge fi. Hmm. mais sa wërsëg nekkul si ay maanaam euh, euh, man doy dil sama bopp di kii déedéet. sama suufu si jaada la ma yàlla di defal lépp wërsëg barke teraanga sutura. xaalis lépp lu ma bëgg mu ngi si suufu si gi mais sama ngor mooy moom ma di ko yëkkati kaw si gi laay nekk di naafila di sa jooy di sa woor di sa wéetal yàlla di sa méditer xam nga si jaada bi day reet nank-nank mm-hmm. au fil du temps da jekk jekki-jekki lépp wuy sil léegi nag les trois les trois F waaw fit ful fayda fit fayda faw nga am ko faw nga am ko hmm? boo amul fulla lu ñuy séddale yaay mujje seddu te amaanaam yenn saa yi du la jot. boo amul boo amul fulla <laughs> yow la nga dëgg lu ñuy séddale. Oh. yow la ñuy mujjee sédd te amaanaam yenn saa yi xéwal gi du du fa àgg day cate. boo amee fulla ak fayda xam ni ngay peese dana ow ngóor day tegal leen ko wàllam bu ngeen ko mayul bu ñëwee kenn du dégg xam ngeen jikkoom. uude nu mu la gisee la lay ëwalee. donc nit kii dafa am benn genre autoprotec autoprotection mieux préservation parce que tu es ton meilleur allié tu es ton meilleur support tu es ton meilleur ami tu es ton meilleur protecteur yow yaay sa lépp bopp ginnaaw yàlla ak say waajur ak sa sëriñ yaay sa lépp bopp kon yow dafa da war a veiller si sa bopp sëñ Pape yow yow fi mu ne nii ñaari Pape Thioune nga sëñ Pape Thioune un dafa war veiller si sëñ Pape Thioune deux di ko protéger ak di ko dimbali hmm? maa la ko wax. n'attends rien de personne sois indépendant construis-toi te góor day wàcc en développement personnel la personne doit créer le futur avant qu'il ne se présente góor day wàcc day wàcc day wàcc parce que la mission les défis de demain la mission de demain les ambitions de demain les aléas de la vie de demain les épreuves tu dois être prêt à les porter et à les supporter c'est ce qui fera de toi l'homme total dont parlait Garoudi nit da ngay wàcc Pape parce que xamoo ëllëg étudiants yi dama naan leen yenn saa ne savez pas le métier que le bon Dieu aura choisi pour vous vous savez le métier que vous vous choisissez. Mm-hmm. mais vous ne savez pas le métier que Dieu aura choisi pour vous donc préparez-vous en conséquence. àddina dox la waaw. berceau cercueil. Mm-hmm. Mm-hmm. dox la berceau cercueil la vie est un voyage allant du berceau au cercueil diggante bi bagage boo mënti fort. gis mu am njariñ du lu nit di jëfandikoo jëlal dugal sa poos bis dina ñëw di nga ko di nga ko di nga ko soxla waaw bul ne lañ seet bii sëñ bi bu ma ko for dugal sa poos man nañ laa jàpp dugal la si dugal la si ay filet bëgg laa boolee gaynde gaynde ga rëcc ñu ne nañ xaar gaynde gi ñëw ñibbi si war naa xiif waaw booba lañ seet ba nga for sa yoon wa ba ngay dox lañ seet ba nga for dugal si sa poos ndax mënoo saa yett benn kii boo xamante ne si dinga ndaw balay gaynde gu xiif gi ñu lay booleeg moom kon àddina kat tukki la voyage boobu nag ba bépp bagage boo xam ne bagage bi sëñ Pape mën na laa amal solo faral dugal ci sa poche mooy lan dans ce vingt et unième siècle celui qui n'a pas ces quatre ingrédients là il est handicapé sans le savoir hmm? la maîtrise de l'outil informatique hmm? la maitrise de l'anglais mm la, la communication hmm? ak le permis de conduire <laughs> <laughs> professeur docteur docteur guddal fa nooy war fi mu toll nii message yaa ngi taw je demande à la jeunesse sénégalaise waaw au lieu ngay changer sa iPhone bii nga xam ni am nga de am nga euh, le modèle précédent waaw bii di ñëw nii li nga koy changer jëlal xaalis boobu nga fay si auto école dem jàngi dawal jël permis dugal sa poste mais métier kii liggéey day bette mm-hmm. il faut que les gens soient réalistes réalistes réalistes réalisme le réalisme sëñ Pape te ba noppi wax naa la lee 3F. waaw fit fulla fayda. fit moom boo ko amul wax naa la ko émission précédente fit moom Pape ku ko amul. gasal sa bàmmeel dem dugg sa xaar yàlla. mu ñëw mu ñëw ak nga ku amul fit mais nit dangay am fit sëñ Pape boo bëggee jot si sa wàll da ngay am fit ak mu ma neex lu mu fit. Hmm. maa la ko en développement personnel moom la ñuy wax audace. audace. l'audace Barack Obama livre bi mu bind nu mu ko tuddee. waaw l'audace d'espérer. l'audace d'espérer. the audacity of hope. l'audace d'espérer. noonu la ko tuddee de. mais audace sëñ Pape mooy lépp. <laughs> yow tey nii boo jëlee sa doom bu jigéen may ko ko amul fit yaa ko sànq yaa ko sacrifié hmm? boroom kër da ngay protéger say doom protéger say soxna. lu jugee sa àll ba nara a dal seen kaw na njëkk a waafal mu njëkk a dal si sa kaw ba noppi. kilifa kilifa. kilifa kilifa wax la kilifa nu ma la koy métaphoriser sëñ Pape. waaw le tronc d' avec les branches et les et les fruits les feuilles. doom yi ñooy xob yi doom yi ñooy xobu garab bi. Mhm. soxna yi ñooy branches yi. Mhm. yow yaay yow yaay tronc d' bi. Mhm. waa ñoom war nañoo jaayu ngelaw ñëw ñuy jaayu mooy ñuy déconné. di mer di perturber. yow nga ni danga leen di topp si seen jikko ak seen baaxu maam yow en tant que tronc d'arbre bi mooy maanaam yaxu yaxu garab gi mhm. euh, j'espère que ñi ñuy déglu a xam ne tronc d'arbre mais man kilifa gi dama war di jéllale di jéggale di muñ des fois je sais ce qui sa passe dans la maison mais je fais semblant de l'ignorer tout en tenant compte dans mes actions de tous les jours su ma jëfee rek ñu xam ni ñu xam ni xamoon naa lépp xamoon naa lépp waaye damaa ku miin sa wax yab la kon bu garab yi bu maanaam branche yi ak. Euh, <laughs> jaajëf <laughs> xoolal ndeysaan Cheikh Hadji Malick bi ñu Maodo Maodo bi ñu ñëwee ni ko kër yëpp lay yëngu te yow sa kër du yëngu lu ko waral mu ni ni kër yi yëpp di yëngu woon ne sama kër di yëngu waaye damaa def ñaar mooy noppi ci lu ma waroon a mën a faj waaw noppi ci lu ma waroon a mën a faj mooy li nga wax sànq ak joxe ci lu ma waroon a mën a gàntu nee na loolu laa def moo sama kër yëngu kenn du moom Seydi Hadji Malick ak a baax yàlla nañ ko yàlla fayal moo ko suñu mag ñu baax ñi sëñ Tuubaa nee na kaay ma wax leen ni ngeen di denc soxna laataa ngeen di samp kër waaw na ngeen leen mënal waaw muñal leen waaw di jéggale mhm. tey jëlale mënal muñal mënal muñal jëlale jéggale mais yow koo sutul mënoo ko may kër sa soxna boo sa soxna buy maanaam sa soxna boo wàccee sa bopp ba yam moom comportement waaw mais sëñ bi koo mënta muñ ay ayibam matoo ko kilifa. nga ni. sëñ Pape. waaw. en développement personnel. waaw si tu n'as pas le sens du dépassement. l'empathie la philanthropie la solidarité un cœur pur et net javelisé. javelisé. xool dañ koy otu javel. xool boo bëggee lumière suñ borom bi leeru yàlla suñ borom ni tàpp sa xol. waaw reflété wu. xol bi dafa war a set. yàlla yàlla may xal bu salim waaye gis nga koo mënta muñ ay ayibam sëñ pap ak sikkam matoo ko kilifa kilifa day muñ kilifa day jub kilifa day ragal yàlla ba pare alhamdulilah rabbil alamin bi nu yàlla may kilifa yu mel noonu ba pare nga nekkal bëgg nit ñi waaw nga nekkal mën nga leen a sax xëy na bëgg maanaam maanaam new ñu la nga bëgg leen ndax liñ lay defal mais ki leen sàkk ndax ki leen sàkk télé bi su ma nee ñaaw na ki ko defar laa waxal ah. télé bi télé bi télé bi dafa ñaaw. Cheikh Ablaye yow fee eh waay foo jógee. télé su ma nee ak a ñaaw. société bi defar télé bi laa waxal. kon su ma attaqué nit ndax melokaanam waaye waxuma ko waay. yàlla ma ko sàkk laa amal affaire. te nag jàll jëlaaloo ak ka mën a rek lay def. yàlla yàlla yàlla bu garaaw wax dégg la laaj. waaw dëgg la dëgg la dëgg la la. suñ borom. mooy borom kattan gi dara mënta dékku te nga xeeb nit. Mhm. ndax na mu mel. la mu sol. Mhm. la muy def. Mhm. melokaanam melokaanu zaayiram. nga xeeb ko. loolu gënu ci xam nit. mais bindal ma xeeb xeeb paam noo koy bindee XEPE e, non. waaw XEPE. E. waaw yàlla day wëlbati day wëlbati baat bi def ko pexe. Allahu Akbar. En développement personnel, on ne doit jamais sous-estimer une créature divine. Par sa couleur de peau, son odorat, xam yaa ngi dégg. son apparence extérieure wala li muy def. yow jàppal ni tu as affaire à un être humain à une créature divine qui compte beaucoup aux yeux de son Seigneur suprême. loolu xam ne ko mais xoolal boo ko xeebee bind nga XEP koo xeeb yàlla wëlbati baat bi def ko pexe. XEP boo ko bindee boo ko wëlbatee Pape lu mu lay jox du pexe la lay jox. yàlla day roof kooku ay pexe muy man loo mënul di def loo deful di dem foo demul di lijjanti loo mënta lijjanti di àgg foo àggul su ko defee da ngay misère di jeex ba mari day tàgg. les les qualités de leader mais Cheikh Laye li nga wax nii yëpp sama xel mi ngi dem ci yonent bi laqad jaakum rasulun min anfusikum kenn du kooku azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim mais mais lu yéeme la cofeel googu moom ci saxaaba yi bëggeel googu ba sax yàlla ni ko law kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik si tu étais quelqu'un au cœur dur kon il se serait détourné de toi. mais saxaaba yi ñoo tax ma gëm ni aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années. c'est les hmm? compagnons du prophète qui m'ont fait croire cette citation. maanaam nit at yi amul solo parce que gis nañ fi lu ne ba tey mais pas-pas bi ak himma bi ak iraadatu bi ak pastéef bi moo am solo. mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé en guerre comme euh, comme généraux des jeunes de 22 23 24 25 très clair mm-hmm. il en faisait des commandants de guerre ay 18 ans ay 18 ans et cetera mm-hmm. mais sëñ bi léegi 18 ans mar détali mais nit da ngay fonk sa bopp cër yu mag yi bul ko jombale sa bopp cër yu mag yi cër yu mag yi bul ko jombale sa bopp ah, mooy kenn du xeeb sa bopp kenn du xeeb sa bopp yàlla moo koy joxe te Cheikh na Ahmed Tidiane bi muy tarbiyu boppam waaw di xeex contre lépp xeetu iñaan Mhm. soo bu masaan gis ko am dara danaan yow yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan yàlla na nga ko ko fulal te barkeelal ko. pour xeex iñaan. pour xeex pour xeex iñaan moom Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mais nit la personne en développement personnel la personne doit s'auto-éduquer et s'auto-responsabiliser. Pape nee naa la àddina di berceau o cercueil nooflaay amu fi sa maam da daan wax naan ki fi gën a sonn si àddina mooy ki fiy xaar nooflaay wala mu fiy xaar bànneex nee na kooku moo gën a sonn ñépp nooflaay am fi de nooflaay am fi sëñ Pape yàlla sëñ Cheikh nee na yàlla ci masàq lañ bind waaye binduñu ci raaxa wala xat karam kii kii kii ndeysaan fi euh, kabat fi loolu laa doon seet <laughs> kabat jooju sëñ bi moo ñu rek mais sëñ Cheikh Ablaye li ma bëgg ñu jeexal l'école bi sax li dese bariwul mm. dese nañu juróomi minute mm. dama bëgg nag parce que leader yi ñuy déglu. fi mu toll nii nga ñëwul ñu ci les qualités d'un leader. boo ko gisee ci yow nga xam ni kon moom nga. bu fekkee parce que koo gis rek dafa bëgg a nekk leader. bu fekkee nekkul ci itam nga jéem a fexe nu mu nekk ci yow les qualités d'un leader buñ ci doon dëkkal. xam nga les qualités d'un leader. boo xoolee si quatre euh, trois F yi. ak trois C yi. ak quatre D yi moom laa la doon résumé foofu. waaye dinaa si jaaraat. un leader il doit être en français après dinaa si ñëw si wolof. un leader il doit être empathique et mm-hmm. philanthrope. Mm-hmm. il doit être ouvert. Mm-hmm. solidaire. avoir une très grande capacité d'écoute. ba noppi il doit préférer le travail en groupe en réseau au travail individuel et personnalisé. ba noppi un leader il est au front en premier et il demande aux autres de le suivre il dit allons-y mais il ne dit pas allez un leader. un leader un leader ba noppi. ils laissent avec les autres ce qu'ils ont et ils partagent avec les autres ce qu'il a loolu mooy leader ba noppi day nekk koo xamante ne si il dédaigne du verbe dédaigner repousser rejeter haïr il dédaigne le repos il dédaigne la facilité il dédaigne la corruption il dédaigne l'irresponsabilité il dédaigne l'inconscience professionnelle ba noppi c'est un nom pur grosso modo un homme total dont parle Garoudi, l'homme total. C'est-à-dire c'est cet homme qui s'épanouit dans toute sa dignité humaine. <laughs> Dans le chemin de l'espérance de Stéphane Essel et de Edgar Morin, wow. il nous parle de deux barbaries qui sont en train de hanter le sommeil mondial. Mm -hmm. La barbarie humaine et la barbarie du capitalisme. Actuellement, le monde brûle, ça brûle partout. Et le Sénégal a besoin de ces jeunes pour se construire et pour se reconstruire. respectons les autorités, respectons les institutions, ayons le sens du travail et de l'audace. Mm -hmm. Et sachons que ce pays-là nous appartient à nous tous. On a besoin de paix. Le premier intrant de la construction d'une nation, nation c'est la paix. C'est la stabilité sociale, c'est la cohésion sociale, c'est le renforcement des liens sociaux.